pour ñu jàpp ko nañ ko bàyyi bu fekkee Macky Sall dafa bëgg ku muy jàpp na jàpp Aliou Sall Aliou Sall mooy sàcc bi na jàpp Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang bi na jàpp ah, Aly Ngouille Ndiaye ñoom ñooy sàcc yi bu fekkee day jàpp na jàpp ñooñ sàcc yaayu noonu Guy Marius Sagna deful dara courant bi la ñuy yokk war ñu koy yokk loolu mooy wax bi bu fekkee ni nag moom bëgg na rey nit ñi nañu rey benn yoon bu fekkee ni nag troisième mandat lay laaj na laaj suñuy bakkan ñu jox ko benn yoon pare pour jox ko ko dañ ko siy dolliwaat pour won Macky Sall ni moomul réew mi bu fekkee ni moom bakkan la laaj nañ ko jox suñu bakkan soxlawuñu si dara ñun réew mi ñu ko gënal nañu nañu nañu rey suñu njaboot dund ñun amul problème soxla nañu lool bëgguñu leneen na bàyyi ñi mu jàpp si kaso bi tee leen otoos du yoon ça c'est le cri du cœur euh, nul personne n'y peut rien c'est le cri du cœur forcément Guy même, même s'il nous entend pas il nous sent la libération de Guy Marius on veut que parce que euh, le Guy Marius n'a pas été emprisonné parce qu'il a touché les grilles du palais, mais parce qu'il défie la France. Et le président Maxal, c'est un pion de la France.